suñu bilan du nekk lu jafe dafa fekk rek na il faut nit ñi am cawarte bañ a tayal bañ di yónnee bàyyi caravane yu bëri amul benn njëriñ vraiment loolu aussi je pense que lu jara wax la les comités électoraux il faut ñu def de la proximité caravane bi ñu war a mën a def daanaka ñaar lay war a doon benn bi mooy département bu ne war na def benn caravane quand même sillonner les toutes les communes du département par les responsables du département beneen bi mooy la caravane du candidat bu ñëwee à ñaar yooyu responsable bu ne jël caravane ne tong ci kaw naan gaa ñi nii yooyu amul njariñ <laughs> yooyu amul njariñ <laughs> dañ donc ñaari caravane ngeen war a def li si des yëpp tànk ngeen di doxee élection ku ko bëgg a gañe da nga ñàkk di doxee tànk dugg kër par kër waxtaan toog léeg-léeg ñu xas leen ñun gisuñ suñu bopp an leen dëgg la lépp àdduna moom lépp mënul sotti si benn bés waaye gis ngeen lii lii lii ak lii ak lii président bu ñu ko joxatee mu motali voilà le discours mais ce discours il se fait dans la proximité donc vous programmez vos territoires dans la commune les villages les quartiers ngeen répartir tache bi bàyyi kat-kat yi bàyyi yi musique bu bëri bi amul benn njëriñ je vous assure c'est ça le travail si vous le faites avec des soldats pour la communication mais il n'y aura pas photo parce que tam wax ji wax ji am na foo xam ne gars ñi même bu ñu demee di campagne yàq carburant dong la ils savent que fini là-bas wax ji kay fii leen dakaroo waaw Dakar daal jëm Pikine ak Thiès waaw ak sax xam naa ne wax ji moom mu ngi fay waaj a jeex waaw et le amul komba